nuyu sénégalais yi ñuy ak ñi dul Sénégal ñu nekk Sénégal ak na ñekk ci diaspora maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa ak ci sa sant dama leen ñaanoon ngeen ñëw ñu diisoo pour may ma ma leeral ndax seetlu ngeen ni depuis ñaari at daanaka xale bu tudd aji Sarr porté plainte ku tudd usmaan Sonko yoon di def liggéeyam seetlu ngeen ni boobu ba léegi Ousmane Sonko wax bu mu wax fu mu génn mook ñi mu àndal ñi ngi yàq ci sama der ak ñeneen ay wax yoo xam ne wax yu ñaaw booba léegi gis ngeen ni maa ngi noppi waxuma dara

te bu ñu waxee nga ni procureur moom mooy ci état utilise loolu moom la ñuy gis France moom la ñuy dégg états moom la ñuy dégg Finlande foo man di dem loolu moo ci ma ne comme noonu lay demee nag te ma it miin naa ko du ci man la njëkk procureur yi ma jiitu fii ci Sénégal aussi noonu la doon demee man tam du am na dossier yoo xam ne ñoo jiitu yi noonu la doon demee ma ne kon lii jarul ma ciy tontu. ñaareel bi moo di dossier bi dafa nekkoon instruction dossier nag bu nekkee instruction dañuy tere ko ci wax rawante na nag man mi nga xam ne maa nekkoon procureur ñetteel bi mooy man sama yar yar bi ñu ma yar ak formation bi ñu ma jox mayuma nit nekk ci jafe-jafe ma ko ci yokkal dara man procureur la ku am jafe-jafe rek yërëm kon mënu mu woon Ousmane ko nekk ci jafe-jafe donte mi ngi may saaga donte noonoo na ma ma ne jarul mooy ñëw di yokk parce que saa boo weddee rek tuumaal nga kat waaye nag nit dafay dem jamono boo xam ne doo moom sa bopp yow kese ay léwén man procureur mën naa muñ loolu parce que tàmm waaye nag dañuy am ay mbokk am ay xarit am ay nattangoo ak ay sénégalais dont yéen journalistes yi yoo xam ne toog ngeen deux ans ñuy accuser benn ci ay faits yu graw te ba léegi tontuwul kon par respect pour vous ak respect nit ñi war naa génn nag ni leen xaaral ma leeral leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag ma ni kon naa ñëw jàkkaarloo ak yéen waxleen leen ci lu leer kani liñ may accusé yëpp dara amu ci man duma ma def njubadi man duma ma falsifier soxlawuma ko dinaa leen koon ba mu leer dama ñëw nag li ma wax leer na dama ñëw pour leeral maanaam ñëwuma pour xuloo du ma polémiquer déedéet xalaatuma ko du ma polémiquer soxlawuma ko ñëwuma pour charger kenn dama leen wax ni lu ko am jafe-jafe rek man yërëm naa la kon du ma fi ñëw pour charger waaye nag war naa leeral parce que soxla ngeen ko te seen à la limite même seen devoir su ngeen seetloo ci ñaari at yi mën nañ ñu ni Ousmane Sonko li nekk teg na ko sama kaw waaye boo ko seetee ba ci biir dafa mel ne ñett la may accusé bi ci njëkk mooy daaw ba ren li mu doon wax mooy dama ko complot dama bokk ci complot bi ñu ko ah, lu tax mu ne parce que dafa ma bëggoon a jàpp wax naa enquête kat yi leen Ousmane Sonko xam naa ne ko fier kon convoqué leen ko mu ñëwee ngeen jàpp dinaa leen wan ne loolu loolu dara amu ci léegi bu gaaw ñaareel bi ma accusé mooy ne dafa am procès verbal boo xam ne bi ñu koy enquête damaa seet li nga xam ne moo koy seetal ma génne ko ci boobu moo gën a te yomb daa leen wan léegi nii loolu amul ñetteel bi ma jàpp mooy nee na am na ay foto yoo xam ne dama koo dugal ci dossier bi te bokk ci pour gën koo mën a suruxal boobu tam dinaa leen wane amul suñu paree dinaa bàyyi kàddu gi ak ñenn su fekkee am na yoo xam ne bëgg nañu ñu leeral ko ñu leeral bu njëkk bi mu ne man dama dugg ci complot bi ndax bi ñuy enquête dama wax enquêteurs yi convoqué leen ko convoqué leen ko bu ñëwee ñu jàpp ko foofu sax sant yàlla parce comme newul man maa ko complot yóbbu ko Sweet Beauté waxul ni dama doon surveiller Sweet Beauté mais dani li xew bi mu xewee ba pare bi ñu koy enquête dama ni leen bu ñëwee rek jàpp leen ko loolu daal moo ma dugal ci complot mun ñu wax ko mu ne loolu enquêteurs yi ñoo ma ko wax man nag li gënoon a simple ci man mooy ñi ma ñëw toog ni leen Ousmane sonk lii mu wax nii ay sos la amul mais du ma dugg ci piège bu boobaa ñu ne gendarme mooy ñoo wax procureur ñoo wax déedéet man du ma ñëw naa leen ay sos la xam nga lu may wax dama naan loolu mu wax noonu mënul woon a nekk maanaam ma jàpp Ousmane Sonko c'était impossible mënta ne ne dama ko bëggoon jàpp dama leen di wan ni mënul woon a nekk ma jàpp ko xanaa loolu kay moo gën a yomb xam nga lu tax mënul nekk député suñ ko accusé ni dafa violé procureur buy enquête ñaari yoon la am ñaar benn bi ñu ni crime flagrant beneen bi maanaam bu ma koy tënk ci dafay ci olof maanaam ñu ni benn bi mooy flagrance beneen bi mooy préliminaire flagrance mooy bi mbir mi soog a xew bu ngeen ko defaatiliku doon ngeen génn ay débat yoo xam ñii dañu ni affaire bi flagrance la war a dem ñu jàpp Ousmane Sonko parce que comme député la mais affaire bi flagrance ñeneen ñi nu du flagrant ñaari yoon yooyu la su fekkee da procureur nag mooy tànn ci ñaari yooyu su procureur tànnee ni flagrance la jël mën na jàpp Ousmane Sonko su ne préliminaire la jël mënul jàpp Ousmane Sonko yoon a ko wax du ko mën a jàpp lu dul assemblée national dafa yëkkati immunité parlementaire ñu seet ma leen fàtte ma ne mbir mi ñaari yoon moo ci am su dee flagrance la mën nañ jàpp Ousmane Sonko suñ ko convoqué képp ni mu def bu ñëwee mën nañ ko jàpp su ñëwul mën nañ ko jëli su nekkee di seetaan football mën nañ ko jëli su nekkee stade mën nañ ko jàpp su nekkee ci siréer bi mën nañ ko jàpp su nekkee fu muy jëndee kafe mën nañ ko fu mu nekk mën nañ ko jàpp xanaa loolu gis ngeen ko ba taay ay nit yu ñu jàpp flagrance kay bu fekkee moom nga def enquête foo fekk nit ki man nga ko jàpp mais man jëluma boobu man dama ni préliminaire lay def préliminaire mooy enquête leen convoqué leen ko nee na du ñëw parce que jàpp na ni député kenn waru ko convoqué te député mën nañ ko convoqué mais boobu débat jàll na ma leen convoqué la ñuy ñëwul ma leen amul problème clôture clôture leen seen PV ngeen yónnee ma kon nu ma koy jàppee loi moo ma ko tere gis nga soo seetee ci code pénal dafa am article 112 dafay wax ne bu fekkee du flagrant délit soo jàppee député yow mi ko jàpp li nga def forfaiture la dégradation civique la ñuy def muy daan yu garaw a man maa tànn ci ñaari yoon yoo xam ni procureur doo ngay tànn mu ne flagrance wala mu ne préliminaire su nee flagrance mën nañu ko jàpp su nee préliminaire mën ñu ko jàpp maa tànn préliminaire loi bi ne ma yow comme yaa tànn préliminaire mënoo jàpp Ousmane Sonko lii la la kon gis ngeen ni mu yombe gis ngeen ni mu yombe kon ngeen jàpp ni ni at loolu la jël at ak lu topp di ko wax di ko wax ba loolu sàppi mu dem wuti benn PV dinaa ci ñëw waaye kon maa ngi leen di xamal leen man bi ma jëlee yoon bi la ma article 112 tere ma jàpp Ousmane Sonko mootuma ko jàpp li ma mënoon mooy comme li ñu def procès verbal bi ñëw sama bureau man leen indi leen ñu indi ko su ñëwee ma def ñaar man naa ko teg yónnee assemblée nationale man sama bopp ni leen yëkkatil leen ma mbalaanu kirial kirlaay bi te loolu sax am na ñu koy werante su ko yëkkatee laay soo ko mën a defaat benn jéego wala ma jël dossier bi comme ni ma def jox ko juge d'instruction bi ni ko man li ma jàppoon ne war naa ko def def naa ko léegi yaay seet man loolu laa def dama jël dossier bi jox juge bi préliminaire la nag jël naa dossier bi jox juge xanaa na dañuy wax day leer da wax wax day jeex mais wax day leer mooy tax mu jeex waaw wa du ma yem foofu neneen leer na jërëjëf mais du foofu dafa lu leneen xam nga damaa wax flagrance ak préliminaire am na ñoo xam ne ay werantekat lañ loolu lañ leen joxe loolu lañ leen fayee ñuy werante dugg ci télé yi di wax di mën nañoo ñëw naan non procureur li ma waxoon flagrance ak yooyu dafay compliqué mais yow mi nga xam ne jàngoo droit sekk nga sant wala jaw boo ko fee nekk sax di discuter discuter yu xumb xaaral ma wax la luy wane ni Ousmane Sonko jàppuñu ko wax léegi Ousmane Sonko lan la wax nee na procureur Serigne Bassirou géey daf ma bëggoon jàpp procureur ki mooy ki nga xam ni man leen koy fàttali am na sañ-sañu ni flagrance la jàpp leen nee na man ci complot bi laa bokk dama ko bëggoon jàpp ñu ne déetawaay mu ne commandant section recherche bi nga xam ne moo yor élément yi nga xam ne fu Sénégal nekk mën nañ ko faa yónni mu jàppi ka fa nekk nee na kooku ci complot bi la bokk kon procureur nga bëgg am doole tuuti nee na commandant gendarmerie territoriale bi woon muy Moussa Fall nga xam ne moo yor brigade yi moo yor gendarmerie yi gendarme yu bari mu yor leen man leen a booleeg section de recherche neena na kooku ci complot la bokkoon kon doole jaa ngi yokku yemul foofu mu ne ministre de l'intérieur mi nga xam ne sax nag léegi waxuma la gendarme waaye policier yëpp moo leen yilif kooku ci la bokk ñu ne déeta waay mu ne ministre de la justice mi nga xam ne moo yilif sax procureur généraux yi ci la bokk ñu yaakaar ne pare na mu ne président de la République ci la bokk jeex na léegi yow mi nga xam ne jàngoo droit bëggoo discuter dama la bëgga a laaj nga wax ma Ousmane Sonko ñii ko complot ñëpp li ñu yor ci sañ-sañ ak doole ñu bëgg ko jàpp nu mu def ba rëcc nu mu def ba rëcc procureur am na sañ ñu jàpp leen commandant section recherche am na doole jàpp commandant gendarmerie territoriale mën na ko renforcer ministre de l'intérieur mën na ko renforcer ministre de la justice mën na euh, moom mooy kilifay euh, procureur généraux yi ñooñu ñëpp complot moom mu rëcc fan la jaar bu ñu foyee seen xel nag bugguma ñu ni parce que dañ koy wax Sénégalais yi ñoo génn non man waxuma mois de mars de waxuma pourquoi jàppuñu ko mois de mars bi nit ñi génnee parce que loolu am na ñu ne nit ñi ñoo tax bu rëcc ñi wax li man dugguma ci weer waxuma mois de mars lu tax jàppuñu ko waxuma 7 février bi mu génnee jàkkaarlook Sénégalais yi woo ñii ci mortal combat waxoy def ay déclaration woo Sénégalais yi waxuma boobu de man le 3 février la 3 février bi Adji Sarr déposé plainte nga xam ni coalition wëragu ko nga xam ne collectif bii yëgaguñu lii nga xam ne Sénégal yi yëgaguñ ko moom génnagul wax ay avocat waxaguñu ay àndandoom waxaguñu moom rek mu nekk wala ña nga ña mu nekkal bariwul ñu am doole ji jëpp ak sañ-sañ bi suñ ko yóbbu woon pour ñu jàpp ko ku koy sauver kon bu fekkee neen dañ ko bëggoon jàpp wax na leen wax fu mu jaar ba jàppuñu ko leer na man damaa yem foofu non damay dama ci yokk benn li may yokk xam nga mooy lan mooy Ousmane Sonko comme du doyal ci sëriñ Bassirou Gueye day tàppe rek di dóor di dóor dafa wax ba dëggal ma moom lii ma wax nii moo ko dëggal moom moo ma doon moo ma doon gën a chargé dëggal ni man mënu ma ko a jàpp lan la wax bi mu demee ba yaramam tàng daf ni Serigne Bassirou Gueye dafa teg pression gendarme yi leen gaaw leen ngeen clôturer PV bi indi ko loolu Ousmane Sonko moo ko wax yéen ñëpp dégg ngeen très bien su fekkee loolu gendarme yi ko assumé naa ko su fekkee man nee nañu maa teg pression gendarme yi ni ko Ousmane Sonko waxee ni yàkkamti leen amul problème ma assumé naa ko boo gendarme yi waxee maa ko assumé xëy na maa bëri xadar gendarme bu fekkee ñoom seen rythme bokk la sama rythme kay ma teg leen pression loolu du problème kon maa teg pression gendarme mais dafa am problème Ousmane su nee maa teg pression gendarme pour ñu gaaw kon loolu maa mooy lan la teg mooy maa teg pression gendarme pour dafa ne nañ maa leen teg pression pour nañ tëj procédure bi yónnee ma ko procédure bi bu ñu ko tëjee yónnee ma ko mooy lan mooy jeexal na mënatumaa jàpp kenn kon gis nga ni ma setale te tayu ko su ma nee gendarme yi gaaw leen yàkkamti naa leen daf leen nangam daf leen lii maa leen teg pression j'assume su ngeen bëggee bu fekkee gendarme yee ko wax laa ko de dëggal naa ko bu fekkee waxuñu ko nag man loolu leerum mais su fekkee ñoo ko wax te Ousmane Sonko jottali ko gëm ko kon su ma yàkkamtee ñu clôturer procès verbal bi mooy sama sañ-sañu jàpp yàkkamti naa mu jeex parce que moom bu ñu ko clôturer ba yónnee ma ko mënatuma def lu dul assemblée moo mooy autorisé wala juge d'instruction moo yor kon yaakaar na ñetti argument ngi ma tegal leen ko yu wane bu ci benn bu ci ne doyoon na pour ma wan leen ni Ousmane Sonko li mu wax ay sos la mënoon naa cee yokk yeneen mais bi may commencé dama ni ñëw mu fi pour charger tey tey conférence de presse bii may def mën naa koo def ñetti yoon wala ñeent yoon boo xam ne bu li may wax bis bu ne du bokk ak leneen li may wax te àll bii moo koy waxee nag ak dal ak tey ak élégance wóoruma ba xam bis mu nekk laa koy mën moo tax dama ne naa leeral tey ci dal après nag kon ngeen xam ni décision arrêté ko moom mënul woon ne amul woon su ma dee nekkul woon nag mooy xam nga Serigne Bassirou parquet la nekk su ma nee décision arrêté mooy man sama jëmm boobu décidé mu woon jàpp waaye mooy kilifa yi ma mën a jox instruction muy procureur général aussi joxuma instruction parce que bu ma ko joxoon ma jàpp ko aussi loolu na leer su ma noonu Serigne Bassirou je vous ordonne d'arrêter Ousmane dama koy jàpp su ma ko bëggee jàpp dama koy jàpp kon dama lay won ne la man jàpp ma ko te aw ma auto instruction wala lenn luy tax ma jàpp kon lii rek moo fi xew daaw waren muy saaga di xas di ma saagalu di ma xaslu lu ne tudde na ma lii rek la lii rek fi am ci bolool point boobu mu wax ne ma dama ko bëggoon jàpp lii kese moo ci am du leneen bu ko defee nag tey dafa baax kon lii naa ne woon naa leen ko leeral ci point boobu mais damay interpeller Ousmane Sonko da nga waxoon dama la bëgg a jàpp mën naa am da ko sos mën na am mën naa am da ko sos pour sa stratégie de communication nga taxal ma nga xam ne yow yaa ko tey dafa la neex rek ngay taxal nit ñi pour setal sa bopp su fekkee loolu la te loolu laa yaakaar ni moom la su fekkee loolu la aw ma dara lu ma wax su fekkee nag dañ laa manipuler ba gëm loola loo xam ne xale bi gët bi raam sax war na ko mën a weddi mais yow xëy na nga nekk ci jafe-jafe ba ñu man manipuler la noonu waa mais fan yi yëpp yaa ngi wax ay ngor ay kii mooy goreel nga jàkkaarloo Sénégalais yi ni leen deux ans ngi may tooñ euh, sëriñ Bassirou Gueye nga leen dangaa ngaa juumoon nga wax ko yaakaaruma ko ci yow nag xam naa ne moom defe naa ne doo doo ma baax parce que man say discours dafa mel ne maa koy safal xorom deuxième bi nee na procès verbal dañ ko soppi ci nan nee na li nga xam ne daf ko ciy setal dama ko génne boobu moom moo gën a tee yomb moo gën a tee yomb dindi xam nga li xew mënoon naa ni journaliste loolu ma Ousmane Sonko def li wax loolu ma Ousmane Sonko waxal amul ni leen dem leen xool procès verbal bi nangam weddi mais Ousmane Sonko dañ ko laaj ne ko waa yow li nga wax foo ko teg mu ne dafa am rapport enquête gendarmerie nee na enquête gendarmerie bi bi bi dossier Adji Sarr kii pare ba ñu tëj ko yóbbu gendarmerie dañoo def enquête ci seen biir nee nañ boobu moo wax ni Serigne Bassirou Gueye moo soppilu enquête bi ngir lan ngir dugal Ousmane Sonko. ma ne loolu tontu bi gënoon a yomb ci man mooy ma du enquête interne la wax enquête interne gendarmerie maanaam ay gendarme lañ doon déglu man kenn laaju ma waaw est que loo xam ne ay gendarme joon wax ñu ni kii mu ni kii la ñu ni kii la mu ni kii la ñu tudd Serigne Bassirou Gueye tudd Moussa Fall waaw boobu enquete man na maa dugal kenn laaju ma sama xalaat kenn laaju ma wala man léegi aw ma présomption d'innocence comme moom li muy xeexal boppam ni moom dañoo war a euh, euh, respecté ay akam ak yeleefam man samay akal sama yeleef bu doon bu fekkoon te bëgg naa la yomb dama lan leen mais man enquête boobu sama yoon newu ca ndax ñi ko doon wax ku tudd capitaine Touré moo wax ni euh, euh, commandant Mbengue laa sant mu changé affaire man la kenn laajuma suma xalaat kenn laajul Moussa Fall général Moussa Fall xaar xalaatam man leen sama yoon ne kuy man naa yem foofu wala mu continuer ne leen waaw mais capitaine Touré bi ma accusé moom wax na ci seen émission yi ngeen dégg mu leen moom daawul wax ak procureur procureur sama kilifa la doon wax mu ne commandant Mbengue laa jox ndigal ne ko soppil PV bi liy setal Ousmane Sonko génne ko ci waaw commandant Mbengue lu tax Ousmane Sonko waxul lan la tontu moom parce que rapport bii ñuy wax ni bu fekkee dëgg la laa wax de parce que man wóoruma rapport bi wóoruma ndax ndax ñii dañ rapport bu fóo la ñii ne rapport bi am na ñii amul mais jàpp nañu jàpp rek pour mu simple ni am na bu fekkee rapport bu am la capitaine Touré wax na euh, commandant Mbengue tontu na waa nañ wax li commandant Mbengue wax mais loolu lu ko wax mukk du nee na dina siiwal rapport bi yaakaaruma ko de maa ngi lay wax ni damay ñëw léegi won leen ni rapport bi kenn changé wu ci dara de dinaa leen ko won léegi dafa am ay préliminaire yu may commencé kenn changé wul dara dinaa leen won li mu wax amul mais dama lay wax ni la même bu fekkoon man accusé nañ ma loolu capitaine Touré moo jóg ni Serigne Bassirou Gueye moo wax commandant Mbeng am na ku ma dégg ku tudd Pape Alé Niang defe naa bokkul ci complot bi dégg ngeen tontu yi mu wax ci commandant Mbeng donte indiwul lépp am na sax lu ci yokk parce que daf ne commandant Mbeng nee na PV bu dem parquet di def aller amul benn procès verbal boo xam ne daal moom moo ko corrigé bi mu koy corrigé procureur def na ko ay remarque remarque la ñu bind loolu Pape moo wax Pape Alé nag remarque moo ko xaw a taawi ni remarque mooy dugalal lii génnee lii et cetera da ngeen ko dégluwaat mais eh, moom ci li mu liir commandant bi remarque la wax remarque mooy ci olof tubaab ay seetlu naa ne nangam da ngaa naan maanaam naan nangam bokkul ak instruction instruction mooy nga di ko dindil wala defal am naa sañ-sañ mais moom remarque la ay seetlu waaye kat commandant beeg amul foofu de. déglul Pape Alé bu fekkee bokkul ci complot bi parce que complot bi moom comme dafay yokk bis mu nekk bu fekkee Pape Alé Niang bokk nee na commandant Mbengue nee na la ma wax ak procureur nag remarque yam ma def capitaine Touré mënu koo xam loolu doyul woon capitaine Touré nee na Serigne Bassirou moo jox instruction capitaine commandant Mbengue pour mu changer commandant Mbedd Mbengue weddi ko ne ay remarque la yoo xam ne moom sax xamut remarque remarque lan la kon loolu doyoon na rek ma ne ci leneen la ci des mooy xam nga Ousmane Sonko dafa war a respecté boppam man waxuma mu respecté nit ñi de loolu dafa mel ni ma mënu ko mais mu respecté boppam yow yaa ngi attaqué magistrat bu def vingt quatre ans yoo xam ne mosoo koo dégg ci njombe ay waxu politique jàpp na kii Macky Sall fii et cetera yooyu rek ngay dégg ñuy wax wax yoo xam ne du wax boobu dal mosoo koo dégg ñu tuumaal ko lenn mosoo dégg ñu ni day yéex a xëy mosoo dégg ñu ni day teel a wàcc mosoo dégg ñun la dafa cuune mosoo dégg ñu la amul xam-xam muy servir sa dëkk pendant 24 mu metti lool nga ñëw di ko tuumal ñu ni ci koo ko jëlee ñu ni capitaine Mbengue capitaine Touré capitaine Touré moo leen wax ci seen télévision ni toog na ay kilifaam jàpp bopp bi dafa xaw a waye di nee na ba ñu yónnee ko benn médecin capitaine Touré moom la gendarmerie radié ne amatul dignité pour nekk ci gendarmerie capitaine Touré moom ngeen di interroger seen télé yi bas muy wax di wax sax mu ne tekk ngeen wax mu leen relancer leen ma maanaam li ma doon wax fàttali naa fàttali leen ma li ma doon wax mais ku mel noonu moom la Ousmane Sonko di jël comme preuve contre Serigne Bassirou Gueye bu def 24 ans c'est pas reconnaissance ça kooku nga jël pour témoin dafay oyof wutal beneen témoin mais bref jëlal ku la neex. léegi li simple mooy Ousmane sonk lu mu wax ne moom lañ soppi dafa ne enquêteurs yi dañoo soppi rapport eh, initial bi moom rapport initial la ko tudde tuddul rapport initial moom xam na ko rapport initial amul ci enquête soo nee rapport de synthèse moo am ci enquête rapport de synthèse bi la bëgg ni moom lañ changé rapport de synthèse mooy lan mooy enquêteurs yi bi ñu enquêté ba pare déglu Adji Sarr déglu nii ñu war a déglu su fekkee am nañ certificat médical ñu dugal su fekkee am na ay prélèvement ñu dugal suñu dégloo ma sàmba ñu dugal Ousmane Sonko ni du ñëw ñu dugal loolu mooy procès verbal ñu ko defee ba pare nag dafa am xel bu ñuy bind procureur ne ko procureur kat ñoo ngi lay yónnee procès verbal bii nga xam ne Adji Sarr moo porté plainte nangam ak nangam moo ci nekk ci gàttal dañ ko ciy gàttal loolu mooy rapport yoo xam ne synthèse la day gàttal léegi nee na rapport de synthèse boobu moom lañ changé waa loolu ban problème la bu fekkee yow li ñu synthèse bi la ñu changé te li ñu synthétiser ma nga fa kooku yow amoo problème mais amul ba léegi amul amul solo nañ jàpp ni moom lañ changé te c'est mais ci biir rapport de synthèse waxul lépp lañ changé daf ni réflexion des faits bi la ñu changé Ousmane Sonko moo wax de nee na fi ñu fi journaliste bi bi fii fii pas journaliste quand même na fi enquêteur bi bind réflexion sur les faits maanaam capitaine Touré ñi bind ab maanaam ñi bind enquête bi bind bi njee pare bi ñu defee enquête wu Adji ak Sonko bi mu ma koy yónnee dafa ni man nag capitaine Touré wala ku ko bindal damaa xalaat lii ci mbir mi Ousmane Sonko nee na xalaat yooyu da cee am ñetti xalaat yu koy setal ma dindi ko waaw mais mbokk yi xalaatu gendarme bu enquête ba pare di ci def xalaatam mën naa setal nit wala mu koy dugal parce que su fekkee mën na ko setal kon yeneen xalaat mën na ko dugal n'est-ce donc capitaine bi def enquête bi bind na ni ñetti mbir kat nii la demee xam nga nu mu ko bindee daf ne bi ma defee enquête bi ba pare mu ni des constatations et auditions il apparaît un certain nombre de contradictions qu'il convient de relever maanaam moom nee na ci xalaatam bi mu enquêté ba pare dafa am ay contradictions maanaam ay yu féewaloo yoo xam ne jar naa xool ñu ne ko ah bon mu ah, mu ni benn ci côté Adji Sarr am na ay contradiction ñett lañ mu ne ci côté Ousmane Sonko loolu Ousmane Sonko waxu leen ko xam naa pourquoi mu ne foofu moom am na juróom-benn maanaam am na Adji Sarr am na ay contradiction moom la Ousmane Sonko jàppee di daf koy setal nee na ñett la dinaa ci ñëw benn par benn waaye yamul foofu nag ki bind loolu dani côté Ousmane Sonko tam waaye am na lu leen ci jaaxal mu ni juróom benn la juróom benn te li ma lay liiral li ma lay wax nii waxuma PV bi nekkoon ci Oumar xam Diallo de mooy li Ousmane Sonko feuille boobu mu yoroon génn ko sa kanam naa ne lii lay soppi maanaam feuille bi ni moo ko arrangé moom laa la liiral loolu moo ci ne ci feuille boobu nga xam ne moom la leen génneel nee na am na ñetti mbir yoo xam ne daf koy setal dañu koo génne léegi nañ seet ñetti mbir yi wax na ko ci télé bi benn bi si njëkk nee na Adji Sarr dañ ko laaj ne ko ana message bi la Ousmane Sonko bind man PV Ousmane Sonko laay lire de waxuma PV bi nekk ci dossier bi de bu Ousmane Sonko xanaa boobu am naa droit lire ko léegi sax am nañ droit lire yëpp ndax enquête bi jeex na waaye PV bi Ousmane Sonko yor ni bii moo baax ci moom won leen ko ni leen bii dafa koy setal procureur dindi ko maa ngi jël engagement ci seen kanam bala may continuer ni bis bu génnee ngeen gis bi nekk ci dossier bi di ngeen gis ni bii Ousmane Sonko yor moo gën a bon ci moom li ma wax garaaw na de Ousmane Sonko lii mu yor nii bee ci dossier bi moo ëpp yërmande ci moom dinaa leen ko wan mu ne dafa am ñett nee na Adji Sarr li ko nee na bi effectivement enquêteur dafa bind man am na ñett yu ma jaaxal ci Adji Sarr parce que message bi mu ne woon dañ ko koo yónnee pour ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñëw da nga xam ne message boobu moo mën a leeral mbir yeeg yooyu message boobu bi ñu ko laajee anamu dañuy daf ni supprimer na ko Ousmane Sonko ne loolu daf may setal te dañ koo dindi ma jàpp ne man xalaatu enquêteur mënta setal kenn waaye nañ jàpp ne da koy setal su fekkee daf koy setal kon set na wecc ndax lii mu ngi ci procès bal bi bi muy wax naan baaxul. ni mu nekk fii ak place bi mu nekk fii muy première position noonu la nekkee fee ma nga fa dara dañu xanaa lii lu bees la ci yéen parce que gis naa ne bu may booy déglu Sénégalais yi ak ngay seetantele kenn werante wul ni changé nañ ko ñëpp dañu ah non non non moom kay changé na ko ndax sëñ Bass ko changé wala changé wu kay la ñuy seet ak bi mu ko changé lu tax mu changé ko mais naan kenn changé wu ko maa ngi leen di waxal fii ni leen maa ngi défier Ousmane Sonko. pour mu génne page bi jox leen ko benn fay la wan na leen ko ci télé bi ba génne ay couleur yoo xam ne yu jaune la na leen ko wan mi ngi ci bu njëkk bi boobu mi ngi ci kon bu fekkee loolu daf koy setal dindi wuñ ko mi ngi ci xam naa daf ko dafa liirul bële ma nga ca mu ñëw ci deuxième bi mu ne boobu enqueteur bi daal ni li ko ci jaaxal mooy ay sataba mi ñu wax ni moom ñaar ñoo doon maase Ousmane Sonko dafa jékki-jékki génn bàyyi leen maanaam Adji saar mi nga xam ni daf ni dañu koy violer moom moo organiser ba kee génn ni loolu doy na waar man weddiwu ma ni doy na waar néewuma doy na waar waxuma ci dara li may wax xam nga mooy lan mooy daf ni dañu ko génn ci PV bi loolu ay sos la loolu mi ngi ci PV bi ba léegi PV bii maa xam jàll yor ba renvoyé ci Ousmane Sonko soo ko demee di ko ca fekk problème bi mooy fii ci deuxième position la ñëw fële mooy ñaari ligne ngi mujj détail laa lay jox xanaa soo demee jël PV bi nekk ci dossier bi bi Ousmane Sonko ni boobu mooy bi ñu falsifié daal bii mooy bu baax bi li nekk fii ci deuxième position ci ñaareelu argument bi Ousmane Sonko wax loolu moo nekk fee maanaam mooy. Adji saar wéetal na wéetoo na ak Ousmane Sonko kon mi ngi fi kenn di diwu su fekkee kon lool lu koy setal la doy na waar wala doyul waar man du ma dugg ci yooyu mais dama leen bëgg xam ne fekkee loolu moo koy setal kon set na parce que nga fa dañu mu des ñetteel bi ñetteel bi ma ci wax du bari parce que yéen sax ba mu koy wax ci télé bi dafa commencé liir xam naa daf ko préparé woon bi muy ñëw mu daal di arrêté mooy li wax ci Sidi Ahmed Mbay daal di ci mbiri Sidi Ahmed Mbay mu ne loolu daf koy setal loolu su ma sañoon du ci wax parce que dama ne man ñëw ma fii pour charger mais soo ci waxul ñu ne ñaar yee mu nekk à l'aise kat wax na ci mais bii nekku ci à l'aise moo tax waxu ci mais boobu comme ci PV Ousmane Sonko la nekk nekkul ci bee xaaral ma liiral leen ko li leen Ousmane Sonko woon ker ni loolu daf koy setal nañ ko liir dafa ne dans sa déclaration monsieur Sid Ahmed mbay reconnaît que c'est lui-même qui a demandé à aji Sarr d'attendre d'avoir des preuves solides pour agir à maintes reprises il s'est érigé en sentinelle devant l'institut attendant que monsieur Ousmane Sonko morde à l'hameçon le mardi 2 février 2021 il est resté à l'écoute lorsque Sonko est arrivé aji Sarr a tout fait pour se retrouver seul avec lui maanaam daf ni capitaine bi def lii dafa ni Sidi Mouhamed Mbaye nee na bi ko Adji Sarr ne Ousmane Sonko maanaam boobu ñuy wax ci affaire Ousmane Sonko dafa ma violé violé ma nee na mënu ko da ngay xaar ba am ay preuve yu wóor waaw ki ni xaaral ba am preuve yu wóor loolu day seetal Ousmane Sonko ku ne xaaral ba am ay preuve yi xanaa kon dafa am loo yaakaar ne am na kon Sidi Mouhamed Mbaye seetalul Sonko dafay wut kee pour mu wut preuve yi mais seetalu ko nee na mu xaar nag Ousmane Sonko ay yoon yoon woon for pour bëggoon ko jàpp loolu day seetal Ousmane Sonko Ousmane Sonko kilifa bu tolli moom waxul ni bi mu koy seet dafa dem ci buntu jàkka ji waxul ni bi mu koy seet dafa dem ci buntu école doomam waxul ni bi mu koy seet daf ko seet buntu kër procureur mais daf ne bi mu koy seet moom suite boote la ko doon seete loolu day seetal Ousmane Sonko man jàpp naa ne loolu setalul Ousmane Sonko su ko dugalul setalu ko mais comme li ma wax sànq dama jàpp di waxu enquêteur xalaatu enquêteur setalul Ousmane Sonko dugalul Ousmane Sonko mais bii xam ngeen ni dugal la gën a jege setal mais mu yokku ci mooy li mujj mu ni bi Ousmane Sonko ñëwee ba dugg Adji def na lépp ba wéet ak moom loolu Sidi Mohamed Mbaye wax Ousmane Sonko dafa weddi ni moom ñaar nit ñoo ko doon maase Sidi Mohamed Mbaye ni ko non ñeen ñaar wéet ngeen mu ne loolu daf koy setal kon ñaar am na Ousmane àndul ak sagoom wala liirul lii parce que dossier bi effectivement lii maa ngi lay wax bi ma koy lire très sérieusement lii ak yeneen i affaire bëgguma ci parce que gen j'ai l'impression que ni parfois da xam ne Ousmane mii ça va pas mais noo mën a waxee lii dafa lay seetal yow koy lii da ko war a denc yii bu ñu ko génnee wala xëy na donc comme moom daf may complot xëy na dafa bëgg Adji Sarr porté ñu plainte ndax lii Ousmane Sonko lay seetal te newul ci PV kon Adji Sarr wala El Hadj Diouf kay ñoo war a porté plainte fii mais du Ousmane Sonko parce que fii dañu ñu ko yow Ousmane yow miñ ñi Ousmane mu sell mi biñ lay seet suite boote lañ la seet seete wuñ la Grande Mosquée de seete wuñ la ci benn zawiya du sax école doom du feneen yow daal man seet naa la ay yoon buntu suite boote laa xaar rek la seet mais loolu loolu wax ju ñaaw la mu ni moom loolu daf ko seetal ah mais d' accord très bien mais loolu bu fekkee am na kuy porter plainte yaakaar naa Adji moo ci war a porter plainte ni leen lii taxal Ousmane Sonko deen ko génn kon gis ngeen lii de moo fi am ñaari weeral lu topp ñu ngi may saaga lu ne wax nañ dafa changé dafa changé lu mu changé ñetti affaire message su Adji Sarr bi wan naa leen ne mi ngi ci dossier bi Aïssata Ba dafa leen a wéetal mi ngi ci dossier bi ñetteel bi moom Sidou Mohamed Bay dafa sa dafa mel ni kuy chargé Ousmane Sonko mais man jàpp naa ni ci waxu gendarme bu fekkoon wax na ko feneen du am problème mais bu fekkee comme xalaatu euh, euh, capitaine bi def la man jàpp naa ni setalul weer euh, setalul waaye aussi chargé wul dama bëgg équitable kon gis nga ne ñett yi mu doon wax dañ ko soppi ci PV bi dara soppeeku ci waaye dafa am lu mu leen waxul léegi bi may commencé lire PV bi leen Ousmane Sonko wax man PV Ousmane Sonko laay wax ba léegi de waxuma bi nekk ci dossier bi kii bi mu nee benn concernant les déclarations de Adji de la victime maanaam déclaration Adji bi mu nee dafa am ay contradiction dafa ni ci côté Adji lii moo ci euh, ci déclaration Adji lii moo ci contradiction mooy ñett yi ma leen woon Ousmane Sonko ni woon daf koy setal won naa leen ñaar yi mi ngi ci benn bi daf koy taxal mais yamul foofu waa ji dani ñaar ci côté Ousmane Sonko nag am na tam yu xaw a doy waar daal di wax juróom-benn affaire juróom-benn affaire yi mu wax ñeenti yi moom gis nañ ko fee moom ci PV procès verbal bi nga xam moom la maa xam jàll yoon maanaam juróom ñeent yi ñu jàpp ni moom dafa dafa xaw a doy waar ci côté Ousmane Sonko mi ngi fee mais dafa am ñaar yoo xam ne nii ci côté Ousmane Sonko la ko capitaine Touré nekkoon yooyu nekkul ci PVB dañ na kon kay boobu amee complot xanaa Ousmane moomu complot fexe ba lii gën parce que ñaar yii ñu dindi te newul fee te nekk ci PV bi Ousmane Sonko yor te liiru xam naa ne daf ko liir mais euh, yaakaar naa du ko mas a liir ci seen kanam ñaar yooyu ñaar yu ñàngal ñaar yu doy waar lañ ko ci waxal fii dañoo wax ne Adji Sarr am na ñett yu doy waan ñu ne Ousmane Sonko am na juróom-benn yu doy waar juróom-benn yi ñaar yi nekkoon ci suuf nga xam ne dafa tàng jër ci sama xalaat waaye dugalu ko nag ndax waxi gendarme loolu loolu dañ na néew ci kon moo tax commandant bi bi muy corriger su fekkoon lor Ousmane Sonko moo tax kon lii la ci def lii nii ci suuf na leen ko Ousmane Sonko jox. mais comme bi may ñëw dama dama cohérent dama leen damay def tout pour expliquer rek mu leer mais nekk ma fi di chargé man ñii c'est pas un problème man li ma intéressé rek mooy nee na yi koy seetal génn nañ ko wan naa leen li koy setal ma lii nga xam ne gendarme yi ñoom dañoo jàpp ne day dugal Ousmane Sonko mu yaakaar ne xarta xaritam boobu bindu ko ci muy capitaine Touré wala kii capitaine Touré jox bindu ko xaritam boobu moo ko bindal juróom-benn yii boo ko liiree bu baax ba génne ko ci Sénégal soo moytul li nga changé xarit waaye yor nga ko liir ko non ñu ngi maanaam liiral non duma ko liir non noonu xam nga il faut ñu déggoo ci dara li Ousmane Sonko wax ni man li koy setal dama koo génne man loolu moom fi indi loolu lay leeral mais lii dugal Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tudd ko moom tudd ko baal naa ko du ma ko bu leen sonal seen bopp non dama préparé lii de euh, euh, non euh, point de presse bi dama ko préparé bay ba mu leer leen du ko wax fi ne na bu leen sonal seen waaw ah, jàlla leen xam nga Ousmane Sonko dina ko génne leneen la si des photo yi nañ ñëw photo yi ñetteel bi la bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti étape par étape la ñu nekk pour le moment daf ni Serigne Bassirou Gueye dafa falsifier procès verbal bi loolu complot la ni ko falsifier mooy dafa am lu ko doon setal ma dindi ko won naa leen ni leen wa setal naa sama bopp won naa leen man du ma setal sama bopp parce que taxaluma mais won naa leen ni leen loolu amul nee naa leen ñett yi mu wax nii dama ko génne benn bi xam naa da nga maa suivre lu ma benn bi. mooy li mu wax ni aji saar message bi ñu ko bind ne ko Ousmane sonk mi ngi ñëw loolu genre enquêteur bi daf ne lu doy waar la Ousmane Sonko ne wax dëgg dëgg yàlla loolu daf may setal ma ne loolu mi ngi fi dañul bu ngeen demee ci PV dañul li may wax nii dama ni c'est un haut fonctionnaire moo jàkkaarloo génn ku assermenté maa li leen dañul parce que bu ngeen demee bis ba xool ne Adji Sarr fi muy waxee ci SMS bi newu fa te loolu dina mas a leer ndax dossier public la bu boobaa dootuma wax ak yéen parce que du ngeen ma respecté du ma foyee sama bopp man. ñaareel bi mooy wéetal bi leen ay sata wéetal nee na loolu daf koy setal te dama ko génne non mi ngi ci loolu tam agent assermenté ma ko mi ngi ci. ñetteel bi mu ni Sidi Mouhamed Mbaye daf ko setal ma won leen ni leen Sidi boobu dama leen koo liiral parce que comme comme Ousmane Sonko liiru ko dama da koo liir ba ci digg mu dagg ko parce que arrangé wu ko ma liiral leen ko ba mu mat ni Ousmane ni Mbaye dafa ni moom ci Sweet Beauté lay seete Ousmane Sonko wax naa Adji Sarr na wut ay preuve te bi Ousmane Sonko ñëwee Adji Sarr fexe na ba wéet ak moom may loolu day dugal Ousmane Sonko setalu ko man leen nag am lu fi des loo xam ne ne dañ koo wax ni moom luy dugal lu ci ci lu xaw a compliqué la ci domaine Ousmane saal euh, Ousmane euh, Ousmane Sonko man waxuma dëgg la waxuma du dëgg mais dama ne moom liiru ko te di ngeen ko liir comme et euh, lu ci bari sax bu ngeen jëloon seen seen ba muy def conférence de presse bi ngeen agrandir ko cliquer ci dessus man ngeen koo traité ba mu génn ngeen liir loolu yomb na voilà merci. <laughs> kon loolu mooy. ci wàllu modification yi xam nga léegi bi may wax ci naan Ousmane daf ma complot euh, non li ma bëgg wax mooy Ousmane daf bi ñu ko laajee ni ko foo jële loolu daf na ci rapport interne gendarmerie boobu dama cee bëgg a taxawaat nag parce que bu fekkee xamuloon ni yoon di doxee dafa am loo xam ne da nga koy jox fulla ak fayda te amu dafa mel ni dossier bi rapport interne gendarme am solo parce que effectivement Ousmane Sonko moo ko xalaat leen ndax am na solo rapport interne bi tey koo woo ci Sénégal ni nekk ci rapport interne bi li mu lay wax mooy rapport interne bi dañuy Serigne Bassirou Gueye ak général Moussa Fall dañoo complot waa mais enquête interne boobu loolu tax woon jóg capitaine Touré lañ doon enquête loolu tax koo jóg te rapport boobu dégluwuñu ma dégluwuñu Moussa kon rapport boobu ban njariñ la bu fekkee rapport bi am na ci seen i seen i seen i wax kon li may euh, fàttali nag ci rapport interne bi tam parce que pour bu génnee ngeen teel ko préparé mooy du ay gendarme ñoo ma accusé de ci falsification déedéet gendarme yi dañu man maa leen teg pression loolu moom defe naa ñaar u ñetti gendarme ci waxi ci waxi Ousmane Sonko wax nañu waaye ci falsifié bii ñu wax benn nit moo ko wax mooy capitaine Touré bi nga xam ne wax naa leen ne normalement nit ku sérieux warul jël ay waxam en compte capitaine Touré moo ko wax bi nga ko waxee commandant Mbengue weddi na ko comme nee nañ sa rapport dana génn ma dama xamul sax rapport boobu waaw lu tax du génn rapport lu tee Ousmane Sonko génne ko lan moo ci nëbbu. am na koo xam ne Pape Alé Niang la liir na rapport bi li ci ëpp liir na ko ba mu des xëy na bi mu ñëwee ci commandant Mbengue am na lu Mbengue wax lu ma setal loo xam ne liiralu ko am na fu Mbengue waxee remarque yokk na ko pour chargé ma mais bu paasee loolu mais liir na PV bi li ci ëpp Ousmane Sonko ci boppam PV bi yóbbu na ko Cour suprême yóbbu na ko ci doyen des juges yóbbu na ko inspection générale de l'administration de la justice wax na ci yéen. waa léegi lu muy nëbb ci PV bi maa ngi défier Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag génne rapport bi quelle date mais vous la question après c'est le minimum de courtoisie qu'on peut avoir dans un point Sonko na génne procès verbal bi bi enquête bi gendarmerie def na ko génne bu ko génnee di ngeen gis ni capitaine Touré moo accusé kilifaam weddi liñ ci wax ni maa leen teg pression nee naa leen amul problème mais rapport boobu amul njëriñ mais même su amoon njariñ won naa leen ni li mu wax bu fekkee rapport bee ko wax sax weddi naa leen won naa leen ay preuve à l'appui liiral leen paragraphe yi ba ngeen gis ko kon kay xanaa loolu war naa leen léegi sanq bi may wax bi may point bi ma njëkk a développé dama wax ni lii mën naa compliqué ci ku deful droit ku sant Seck wala ku sant Jaw koo xam ne bëggul réfléchir fii tam noon laay def du wax naa leen wax yoo xam ne mën naa compliqué rapport bi synthèse bi nanga dafa xaw a compliqué yow mi yow mi nga xam ne lu simple nga bëgg laajal dara xanaa di nga laaj waaw procureur bi muy falsifier rapport bi lan la ci jublu ban inter laa ci man a am ñaari inter la ma a doon ci sama xalaat ci sama xalaat bu gàtt après ngeen wax ma mooy benn bi dama bëgg a jàpp Ousmane Sonko moo tax ma falsifier rapport bi su dee loolu wax naa leen ne bu ma nee flagrance la rek dama koy mën naa ko jàpp kon kay jarul mooy falsifier ñett ñaar nee na lii war a mën a nekkaat xanaa ci sama xalaat mooy dama ko def pour charger pour gën pour gën a compliquer le cas Ousmane Sonko même su ma ko jàppul aussi mu compliqué ba nga xam ni fii ba procès bi jeex day ñàng waaw loolu bu ma ko bëggee man code de procédure pénale may na ma hmm? soo seetee code de procédure pénale article 33 dafay wax ni procureur mooy enquête wala muy enquête lu il procède ou fait procéder maanaam moom bi muy enquête ba ci digg bi su ma neexoon ma ne ko arrêté enquête bi dellu jox jox ma ma àggale ko pour procureur am na boobu droit arrêté sa enquête fii la yem doy naa ci ñoom ñoom comme gis naa ko fii gis naa ko fii nanga naa arrêté enquête bi indi maay koy àggale man ci sama bureau entendre ñu ma neex entendre ku ma jàpp ne war naa ko entendre ma entendre loolu man naa am droit may na ma ko du ma yem foofu sax parce que Sénégalais lu mës na gis mën na ne amul mais dama ne lu yàggu rek leen ko yéen couvrir ngeen l' affaire des appels entrants yi nga xam ne ARTP ak yooyu ñu naan appel dafa dugg dafa dafa amee ñu jaaj dafa am nangam. section recherche bii doon déglu Adji Sarr ak Ousmane waroon a déglu Ousmane Sonko ñoom ñoo déglu ñëpp ba mu des ki ñu tuumaal procureur leen indil leen ma enquête bi bi ñu ko indilee mu entendre ki ñu tuumaal ci parke parce que article 33 moo ko may enquête boobu mu def ko muy enquête bu baax dossier dossier bu baaxee noonu gëj nañ ko gis bi dossier boobu commencé ba demu jeexee kenn mosu cee dindi virgule kon nag su ma neexoon man ko indil enquête bi dagg ko fi nga commencé te kon Sénégal yi nañ nangu ndax enquête boo xam ne yow ñëwagul ci procureur presse bi jot ci su ma ko nangu woon sax dèjà damay am justification bu yomb mën naa ko indi su indee waaw ah, man au may wax naan commandant beeg yokk ci dara bu ëllëgee mu may weer wala yooyu ma yokkal sama bopp du ñeme yàlla la rek ne dama ñeme yàlla naan ko dindil pour dugal Ousmane ma ñeme yàlla daal di ci yokk ne déglu naa El Malick Ndiaye bu Pastef nee na Ousmane Sonko li ñuy wax moo ko def kon coow du bëri est-ce que coow li mën naa ëpp lii ma coow moo ko ci bindoon su ma comme damay sos di indil nit ay problème mu mënoon naa jël enquête bi ni ko indi ko ma àggale ko su ma ñëwee ma ne El Malick Ndiaye moo moo déglu nañ ko fii fii la juddoo nanga danga daara jol xaw ma damay wax ci El Malick Ndiaye parce que gis naa ne léegi bas la may su ma leen El Malick bi ñu ko dégloo nee na Sonko daal li wax moo ko def déglu nañu sax Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko nitu giraawaal yi la daal di clôturer teg weddi moo fi nekk rek Bassirou naan demoo fa El Malick Ndiaye di waat naan musuma gisee ak moom yooyu fi ne coow li ni kur Ousmane Sonko di ma saaga comme ni may saaga bii loo xam ni loolu mooy mën a am njëriñ mais xalaatu capitaine Touré ñu changé ko xalaatu capitaine ab xalaat procureur amul dara lu xelam xalaat lu mu màcc lu dul li capitaine bi xalaat moom laa changé changé wu ma enquête bi changé wu ma procès verbal changé wu ma certificat médical changé wu ma dara xalaatu capitaine Touré laa changé amee boobu procureur lool lu muy jëriñ bu ñu changé xalaatu cap lan la may lan lay jëriñ procureur loolu mën na dugal Ousmane Sonko mënu ko mënu ko setal wax naa leen ne ñett yi ñu wax ni Adji saar li aji yi Ousmane ko wax ni daf koy setal mani setalu ko tuumalu mais juróom yi ñu wax nag mel ni dañoo bëgg ni loolu day tuumaal Ousmane Sonko jàppaar naa ni setalu ko tuumalu ko parce que gendarme bi moo ko xalaat léegi nag bu nekkee ca biir procès verbal boobaa ñoom ñu dem seeti xanaa leer na kon yow boo laajee Ousmane Sonko ni ko Serigne Bassirou ban intérêt la amoon ngeen xam ne aw ma ci woon intérêt fee plan bi ma defoon fee laa def fii fee dama leen a wan ni lii la ci droit wan leen yow mi sant Seck lii mooy sa xalaat après wan leen ne Ousmane Sonko dafa maa déchargé fii itam damay won ni la Ousmane Sonko dafa maa déchargé dafa def dafa am taxawaay boo xam ne dafa ma déchargé Ousmane lu mu wax ci seen presse mu ne dossier bi dafa nul procédure bi dafa nul instruction bi lu ne mooy dafa nul waaw ma lay laaj. dossier d'instruction bu nul yéen yéen chroniqueur judiciaire lan moo ciy pexe am ngay avocat doo dem chambre d'accusation ne ko Serigne Bassirou Gueye bii ma tuddee Barbouze ak xawma ma triangle de Bermudes nga xam ne day falsifier dafa falsifier PV te instruction bii maa xam Diallo def aussi lii yëpp daal dafa nul nga ne chambre d'action mu annulé ko waaw lu tax bi dossier bi pare ba niñ ko clôturer moom demul chambre d'accusation pour annuler li nga xam ne lu bon la parce que loolu bu ñu ko annulé woon xam nga lan lay lan lay indi su nee annulé Ousmane Sonko ñibbi noppalu noppal sénégalais loolu baaxul ci moom mais defu ko mu jël yoon bu sori tamit bind cour suprême dañ jàpp sëriñ Bassirou Gueye bind igage nañ dàq sëriñ Bassirou Gueye mais loolu muy yoon bu compliqué ndax il faut nga am autorisation ministre de la justice beneen bee fi ne bu igage pare ko jox ministre ñu yónnee ko cour suprême eh, toog di ma mais loolu day yàgg te boobaa moom procédure am mi ngi continuer kon kay li gënoon simple mooy mu yóbbu ko chambre d'accusation ñu annuler ko parce que bu ñu ko annuler da koy mën a jël yóbbuwaat ko cour suprême ni Serigne Bassirou mi defoon lii te ga te xare te ga euh, natt ngoom yee annulé nañ ko kii nag moom kii lañ war a jàpp boobaa nag moom dafa naa kenn du man a defaan Serigne Bassirou kon au lieu ngay jël ay yoonu cour suprême bu gudd boobu waaye ñëwal chambre d'accusation rek. waaye defoo ko defloo woo ko say avocat moo lay wan ne moom da doon communiquer waaye dëgg-dëgg lii muy wax ni gëmu ko yow nee nañ la kaay dem États-Unis avion ngi nii yor nga visa yor nga billet ngay du jël avion bi damay jël saret jaar ci wetu géej gi parce que am na ay xeer ma yéeg ci après géej gi mën nañ yàlla mën na def mu glacé euh, sama saret bi mën ta jaar loolu la xam ne yow bëggoo dem États-Unis États-Unis ku fa bëgg a dem kay da ay guddal la yow Serigne Bassirou nga bëgg xam nga chambre d'accusation dal mooy avantage bi ci moom xam nga bu demoon chambre d'accusation lan moo si neex mooy buy dem chambre d'accusation du tàggu ministre du tàggu sax juge d'instruction Maham Diallo bi yor dossier du ko tàggu du tàggu procureur Amadou Diouf du tàggu procureur Serigne Bassirou Gueye du tàggu kenn du leen ko sax yëgal day seet poosu grand boubam mu génn ci benn yi jël bi bind ni monsieur le président de la cour de la chambre d'accusation Serigne Bassirou Gueye ak Maham Diallo ku ci nekk wax wax lu bi nulé dem dépôt du ko déposé muy jaar ci procureur dem de day dem déposé ko directement ci président chambre d'accusation yow nga am boobu solution yow wax nga fi ni cour suprême dañuy complot ci say conférence maa xam dafay complot Serigne Bassirou dafay complot euh, Amady Diouf day complot waaw léegi bàyyi leen fa chambre d'accusation comme nee nga ñoom duñu complot yow bu du chambre d'accusation te boobu yoon kenn tereelu ko mais dafa am leneen lu gën a neex ci chambre d'accusation mooy chambre d'accusation boo ko bindee loolu day yónnee juge d'instruction bi nga naan dafa lay complot ni ko dossier bi nga yor yónnee ma ko arrête yónnee ma en original loolu neexul ci moom bu ko yónnee ci la koy soog a càmbar bi avantage yu chambre d'accusation moom mooy yoon daf ni chambre d'accusation bu jotee dossier bi ci juróomi fan war naa wax ndax Ousmane Sonko lii muy wax am na dossier bi nu France bu fekkee am na ñu daal di annuler bi mu dem ñii bi coow li jeex moom mu seet yeneen lu muy lijjantee ak ak yi ko doon complot loolu neexul wala chambre d'accusation ni Ousmane Sonko li nga wax amul article 199 may na chambre d'accusation dani ko soo jotee dossier donte lu Ousmane Sonko wax amul yow man ngaa def revue xool page par page benn par benn ci dossier bii yépp boo ci gisee lu ko mën a annuler donte Ousmane Sonko gisu ko chambre d'accusation da koy annuler mbir ma yam foofu waaye yow nga am yooyu chance yépp bàyyi fa chambre d'accusation topp ngelaw li di far far di jëm cour suprême kon loolu mooy ne Ousmane Sonko dafa nekkoon ci stratégie de communication loolu il faut ngeen xam ko yéen journalistes yi yàgg am xam naa am ngeen expérience waaw du ngeen accuser kenn du ko waxee mais xam ngeen ni wax dëgg yàlla lii bi wax ni amul sens mais yeneen Sénégal yi nga xam ne de bonne foi la ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñi ngi may xas ni may kii mais seen njort rek moo ni Ousmane Sonko wax dëgg la ñu wóolu ko ci ni muy waxee ak wax ni muy aaloo ak ni muy pompé ñu wóolu ko fekk lii muy wax nii sos yi kese la kon war naa leen ñett nee naa leen benn mënul woon a deñ ñun mënuñu ñu a def lool amul ma nga fa ñaara ma war ne la yow mi dul xalaat laajal Ousmane Sonko ban intérêt laa ci am aw ma ci intérêt amul intérêt ñetteel bi ma war ne la Ousmane Sonko ci boobu moo ma setal bala may jeexal ci boobu point dama bëggoon défier Ousmane Sonko parce que dama ciy del si waat il faut mu génne ñaar benn mooy rapport d'enquête gendarmerie bi na ko génneew liir li commandant Mbengue nga wax ci man bi ma capitaine toure taxalee na ko liir loolu mooy yëfu gentleman na liir enquête bi parce que génne na ko frein wax na ko génne nit Sénégalais yi gis ko bu boobaa su ci amee leneen dinaa delsi ci anam bi may delsee du nekk anam bii bu boobaa naa wax ba ñu dégg ma dinaa génne ba ñu gis ma wax bu àgg nag doo ko ko moom kon ci tënk daal mbir mi mooy loolu ñett yi da koy déchargé ñaari war naa leen mi ngi ci PV bi changé wul ma fa ñetteel bi war naa leen lu koy dugal la su ci génnee sant yàlla la war a def juróom benn yi koy dugal ñeente yi ñu ngi fee ñaari am na chance correction yi génne waale ko am na chance correction yi génne waale ko moo tax par respect moom na ko liir maa ngi jëlaat aussi engagement ci yéen magistrat assermenté magistrat donc euh, fonctionnaire assermenté maa ngi wax ne bu PV yi génnee rapport enquête bi bu bu Adji Sarr génn bu Adji waxatuma bu gendarmerie boobu wax naa li si ma la rapport d' bi nekk ci procès verbal bi nekk ci Maham Diallo bu génnee ngeen comparé bi ko Ous bi Ousmane Sonko yoroon ni boobu mooy bu baax bi maa ngi leen di wax yéen ñëpp deen ko teel a seereel ni di ngeen gis ni bi Ousmane Sonko yor moo gën a dangereux ci moom bi nekk ci PV bi moo gën a sedd ci moom te am nañu ko gis wax nañ ko te yaakaar naa ni léegi xam na loolu parce que gis naa am na benn yoon bu mu jël loolu xëy na man tey laa njëkk a wax ci procès ci affaire bi publiquement bu ma sañoon tey laa ciy mujj a wax waaye comme moom ay jólloli la takk rek di wax di wax di wax rek mën na am su ma ci waree dellusiwaat bu boobaa nag dañ xam ni ñu noonu lan moo ci des mooy photo yi gis nga bii je vous parle très mook li mu wax ci Sidi Mouhamed Mbaye ni daf koy seetal su ma sañoon du ma ko wax parce que à chaque fois bu ma ko liiree damay sentir lan mooy problème nit ku nekk ci jafe-jafe lan mooy sa gis nga lii photo bii foto yi sincère bëgguma ko woon wax mais su ma ko waxul da ngeen naan ñaar yee dama cee nekk à l'aise bii nekkuma ci à mais photo yi moo gën a triste ci képp koo nga xam ne di nga am xolu yërmande lan la wax ci photo yi dafa am sax lu ma bëgg a leeral foofu daf ne gendre gendarmerie bi wax na ci photo yi c'est faux xam naa loolu tam lu bees la ci yéen enquête gendarmerie bi mu ne wax na ci photo yi c'est faux waxu ci dara xam nga fekkee da ngay wax di wax di nga dem ba mujj da ngay jaawale rapport gendarmerie bi ŋaangul ñeppiwul capitaine li mu wax ci rapport gendarmerie bi yépp amul waxu photo parce que loolu doomu naa xam sax capitaine Touré bi bi enquête bi jeexee la ci génn te nee nañ photo yi après enquête bi la kon nu ma ci accusé kon photo yi newul ci rapport gendarmerie Ousmane Sonko xëy na am na fu mu jëlee wax ko waaye photo yi kenn tudd ko ci rapport gendarmerie mais photo yi am na ci dossier bi mais kenn wax ko ci rapport gendarmerie bi mu ni moo ma dugal kenn waxu ci photo yi kon rapport gendarmerie bi benn mbir parce que dafa mel ni rapport gendarmerie dafa maa accusé ñaar benn mbir la accusé ci maag voilà war naa leen boobu leer ah waxul ci photo yi mais loolu du problème sax mu wax ci mu bañ ci wax sax loolu xam nga amul trop solo li am solo mooy photo yi lan la ci wax dane photo yi Serigne Bassirou Gueye mi ngi ko génnee ci internet dugal ko directement ci dossier bi te ci gis ngeen ci conférence yi léeg-léeg mosul gis Serigne Bassirou mosul waxanteeg moom lu dul ci ay média la gisee Serigne Bassirou ale kon nooy xamee ni man ci internet laa ko jële dugal ko ci directement bu fekkee dañ la ko nettali xanaa prudence ak wóoral ak dëggu dina may nga ni loolu kat dama ko yaakaar waaye daal ni dafa jël ay photo dugal ko directement te yow xamuloo fu photo jóge noo mën a xamee ni fu Serigne Bassirou jëlee photo te mosoo gis Serigne Bassirou mënoo toog ak moom li may wax sax xam naa yéen a gën a xam waxu Ousmane Sonko mais loolu sax ba léegi amul problème waaye bëggoon naa leen wax sa loolu il faut ma leeraleen ko photo yooyu muy wax. am na lettre boo xam numéro 108 la barre 2 barre SR du 8 février 2021 boo xam ne moom la ma commandant section recherche yónnee boole ci photo yi bi mu maa ko ko vérifié loo mu vérifié ko ba pare yónnee ma ko ci numéro bii ma la wax pour lettre numéro 108 2 bu SR section de recherche maanaam du 8 février 2001 dal ci bind pour jonction au PV numéro 108 maanaam PV bi ñu doon def ci Ousmane Sonko enquête Ousmane Sonko ak Adji Sarr PV boobu daf ma koy yónnee le huit mu yónnee ma bii ne ma naa ko ci def ma boole leen le neuf jox ko juge kon li ma naan dañu koo jëlee ci internet loolu amul sens mais c'est pas grave loolu c'est pas un mais li ci grave mooy daf ni PV boobu lu tax ma dugal ko ci lu tax mu dugal ci photo yi nee na pour dugal Ndeye Khady Ndiaye nee boobu dama bëgg a charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme ñu ne ko le proxénétisme mooy proxénétisme mooy kuy jaay jigéen ok nee na dama jël photo yi dugal ko ci biir pour taxal ndey Khady Ndiaye bu ko defee bu Ndeye Khady Ndiaye taxee ma man ko atteindre moom du loolu la wax man waxu Ousmane Sonko laay wax de du ma wax ma inventé dara li ma yor kenn xamul lan la ci lu ma mën a lu ma mën a lu mën a setal mbir yi mais damay jël waxi Ousmane Sonko rek nee na man maa jël photo yi dugal ko pour taxal Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme mais loolu loolu loolu yërëmtalu na Ousmane Sonko mi ngi ci procédure bi depuis deux ans daanaka moo Ndeye Khady Ndiaye ñoo bokk parce que viol lañ ko toppee moom ak menace de mort toppee Ndeye Khady Ndiaye complicité de viol ak yeneen au lieu mu xool procédure am mu topp Serigne Bassirou Serigne Bassirou Serigne Bassirou Serigne ba xamul lu nekk ci procédure bi maa ngi leen wax loo xam ne xëy na di ngeen ko di du xëy na boo ngeen ko xamul aussi en tout cas war na leen mën a bett mooy procédure bi mu commencé ca section de recherche ba mu ñëw ci procureur procureur saisir juge d'instruction juge d'instruction woo leen ñoom inculpé leen enquête ba mu jeex mu yóbbu ne nañ leen àtte proxénétisme amu ci hmm? proxénétisme bi mu ne dama dugal photo yi pour charger Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme daa amul sax ci dossier bi proxénétisme mooy koo xam ni dafay jaay boppam ki koy dimbali di ko wutal ay client wala di ko wut fu mu dëkk wala yooyu kooku moom la ñu woowee proxénète moom nee na Ndeye Khady Ndiaye dama koo chargé bëgg a wone ni moom day wutal euh, euh, ay ay day wutal euh, Adji Sarr ay góor ma ne nan laay chargé ndey Khady Ndiaye proxénétisme alors que dossier bi ba mu jeex amul proxénétisme xanaa loolu leer na nag na génne benn fu ñu bindee proxénétisme gis nga même capitaine Touré dégg naa Pape Alé Niang liir ni capitaine Touré wax na ni xaw ma lan te bëggoon topp Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme capitaine Touré bi doon def enquête bi sax bi ñu ci euh, kii bi ci ci ci inculpation yi mu visé maanaam euh, li mu tuumal ñooñu bindu ci benn infraction bu nuru proxénétisme kon xam nga loolu leer proxénétisme amul ci dossier bi dossier bi bi mu ñëw man maay procureur man maa jël dossier bi jël sama réquisitoire introductif ah le 9 février incitation Ndeye Khady Ndiaye ñi ngi ko toppee incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ak complicité de viol Ousmane Sonko ñu toppee ko viol ak menace de mort ana proxénétisme juge bi tam bi mu koy inculpé loolu la ko inculpé waxul proxénétisme juge bi bi mu koy renvoyé loolu la ko renvoyé amul proxénétisme mu ne man damaa singale Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme te yow nga war a xool sa dossier yow nga war a dem ba à nga nekk deux ans ci procédure ñu renvoyé procédure yow xamuloo lu nekk ci procédure nga jàpp ni li lañ toppee kéeg loolu c'est dangereux pour moom moo tax ma ne kii affaire yërmande nag dafa jot mu am loolu triste mais am na leneen lu ko gën a grave am na lu ko gën a triste mooy daf ni bi ma toppee lu tax ma bëgg a topp Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme mooy nee na moom Ousmane Sonko laa gën a bëgg dugal ah loolu nag moo gën a tey garaaw quand même Ndeye Khady Ndiaye dama ko topp dama ko bëgg chargé pour proxénétisme wax naa leen ne amul mais nee na loolu li ma si jublu mooy pour ma taxal ko moom Ousmane Sonko waaw loolu ku am na xel ku am na xel da wax loolu xam nga mooy la kuy njaay jigéen maanaam nee na man dama ne Ndeye Khady Ndiaye mooy dimbali aji saar muy jaay boppam maanaam kuy jaay ñiy jaay seen bopp lay dimbali mooy proxénète du dëgg waa su nday xadi njaay dee dimbali aji saar muy jaay boppam kon aji saar day jaay boppam kon aji saar dañ koy topp su fekkoon loolu dëgg la kon ki koy dimbali muy nday xadi njaay dañ koy topp waaye nee na Ousmane Sonko kon bi nga xam ne moom bu fekkee jafe-jàppe boppam client client la kon dañ koy bàyyi kon soo toppee nday xadi njaay proxénétisme kon yow Ousmane Sonko rëcc na mais loolu bu fekkente ne Ousmane Sonko ak li mu am ci xel ni ñi xam ko nga xam ne ay ñeenti xel la monté su demee ba mënul comprendre ni su dee proxénétisme rek moom rëcc na mu chargé ma ci loolu ni man wala dama ko bëggoon a tooñ du tax ma bëgg koo tooñ c'est parce que dama ne kee proxénète la kon nag moom laa bëgg a chargé mais su ma nekkee kee proxénète la mooy kon moom nee naa rëcc na waaye kon ma cuune lool nee na dama ko bëgg a singli moom ba pare may wax loo xam ne bu ma ko waxee moom génn na ci procédure bi dem ñibbi këram donte li muy wax dara amu ci singale wu ma ko defuma leen kon loolu laa doon wax bëggoon Sénégal xam ko kon loolu wax ci photo yi kon gis ngeen di France ay photo procureur amul dara lu muy def lu ci ay photo an ay foto ay jigéen yu xaw ma lan et cetera loolu ak li procureur am ci pouvoir amul dara lu muy def lu jël ay photo di dugal photo yoo xam ne boo ko dugalee soo nee Ndeye Khady Ndiaye proxénète la rek yow Ousmane Sonko rëccal kon foofu li ma lay wax ci lu gàtt mooy photo yu jotewul dara dara dara ak Ousmane ay foto yu ñaaw Ousmane Sonko dañ ko toppee viol waaw photo lu mën naa war a dara ci viol déedéet bu comme photo Adji Sarr newu ca kay kon photo mënul wane dara ci viol photo mën naa wone mën de mort maanaam ni dañ koo dafa doon tiital ba ko rey loolu ay photo photo yu jigéen yu yu sol ay sol yu doy waar loolu mooy firndeel loolu kon xam ne déet kon loolu mooy loolu Ousmane Sonko yoonam newul ci photo yi photo yi amul benn lu mu koy yokkal wala lu mu koy wàññi photo yi sax Ndeye Khady Ndiaye ñett lañ ko topp complicité de viol photo yi jariñu ci dara moom Ndeye Khady Ndiaye incitation à la débauche bi ñu ko toppee maanaam koo xam ne da ngay xiir ay xale ci ñu yàqu photo yi jariñu ci dara diffusion d'image contraire aux bonnes mœurs maanaam day génn ay photo yu ñàkki teggin loolu moo tax photo yu jóg benn boobu la te loolu yoonu soo Sonko nekku ci xanaa leer na kon gis ngeen ni photo yi yoonu Ousmane Sonko nekku ci munu koo taqal lu toll ni tarfatal ay ni ba ma koy jël di ko ci def kon li ngay xam mooy Ousmane daal moo dëtte woon rek toog bëgg maa taxal benn mu bëgg setal boppam taxal nañ ñaar mu ànd ak ñoo xam ni xam nañ ne am na problème ñu profité ci moom di ko manipuler man nag bu njëkk bi laa gëm dama gëm ni moom mooy manipuler waaye teewul nag comme man ku gëm dama gëm yàlla bu ko ma wax lu ma wóorul man naa am parce que léeg moo wax wax yoo xam ni wax dëgg yàlla du waxu kilifa du wax bu am xel. kon nag loolu la kon su fekkente ni Ndeye Khady Ndiaye dañ ko wax affaire donc dugaluma lu ma woon jéemuma dugal Ousmane Sonko am na loo xam ne aussi nag seetlu naa ko ci mbir mi xaw ma remarqué ngeen ko mooy Ousmane Sonko saa bu may attaqué day wéet day wéet ci mbir mi am nay avocat ba may porter plainte cour suprême moo signé affaire même su fekkee ay avocat am par des règles et cetera wuñ ko. boo liiree la mu bind ak la mu ni ko expliqué ci seen média yi xam ngeen ni kii boroom xam-xam assisté wu te pourtant nag ay kàngam moo ko dal bokk na ci yenn ci avocat bi du ñëpp waaye ci ay avocat am na ci ñoo xam ne ci ñi ëpp xam-xam ci baru la lañ bokk ci ëpp xam-xam ci Sénégal ñu ngi ci moom kon su fekkonte ne loolu du waxu ku daanu ci saret muy dem cour suprême di nga gis avocat yi bind ci lu leer di nga gis avocat am na benn avocat boo xam dem na ci presse dama attaqué kenn rek la d'ailleurs kenn rek la xam naa moom day wut tur ci dafa amagul tur du ma ko jox tur day wut tur ci Ousmane Sonko attaqué na ma ci presse bi kooku su xamoon ne lii Ousmane Sonko def baax na kon moo koy jàppale ci rédaction jàppale ko ci def mais boo gisee Ousmane Sonko li mu wax ni mu bind ak li mu ci siiwal di nga xam ni kon Ousmane Sonko wéet na trop na tam bi mu ne affaire ni sëñ Bass dafa salfaañe affaire dafa salfaañe wéet na ci parce que à part benn avocat boobu ak xëy na keneen koo xam ni militant la en même temps que avocat nga xam ni c'est normal quoi que mu défendre noonu c'est des positions kii mais à part loolu déggoo kenn ku ko jàppale ci avocat ni ko Serigne Bassirou nangam parce que ñi ko xam nañ ma ñi nekk ci wetam ñi ci ëpp xam nañ ma am nañ ay relation yu baax naw nañ ma naw naa la bi ñu ma namee of nag bi gis am na ci en ay ay ay message yoo su ma la ko waroon sax da ngay da nga c'est pas normal da nga naan c'est pas possible ndax cofeel ak yooyu loolu la ñu séq kon ñooñu bu te ñooñu ay avocat dëgg lañ maanaam nekkul ay sëriñ Bassirou magistral nañ ko ruusoo ak yooyu de suñu xamoon ni lii sëriñ Bass da ko solo ñoo la koy njëkk a wax ne ay sa waaye boo ko liiree di nga xam ni lii bàyyi ko Ousmane Sonko rek mu lijjante ko au plan politique comme ni ko kenn doon waxee démb ni ni dossier bi dañ ko dañ ko xam ne ko lijjanti ko au plan politique moo ci des je ne pas mais kon xam nga loolu wéetaay moo tax séjour de chambre d' accusation ku koy séjour de ay falsifié ak yooyu kon loolu moom nga xam ne dafa wéetaay li ma ne dama koo bëgg a arrêté moom boobu ci la gën a wéet parce que doo dégg sax ni yow dafa ko bëggoon a moom loolu avocat ñi ko sax wax donc procureur damaa bëgg arrêté mais arrêté wu ma loolu du xel kon wéetaayu moo nekk loolu ci procès verbal bi ci sama diggante ak moom moo tax lu ne mi ngi koy wax fi may jeexale mooy nit doo tooñ tooñ baaxul man 24 ans laa liggéey magistrature ku nekk magistrat wala nga nekk ci corps wala nga xam li fay xew respecté na dossier bi bi muy am boobu def naa 8 ans daanaka parquet Dakar danaa toog parquet Dakar 8 ans nga xam ne maa ngi waaj a dem ma nekk di salvage ay procédure lan lay jëriñ mais moom gëmu ko da leen communiqué waa tey nag dafa jot ñi nga xam ni ñu séré lañ ñoo xam dañoo mel rek jàpp ni procureur li mu def vraiment jaaduwul ci procureur ñu dal sama kaw jot na lii ma wax ngeen déglu ko. jël ko dégluwaat ko comparé kook li Ousmane Sonko di wax comparé kook li Pape Alé Niang liir ci PV bi ngéen gën bu boobaa dootu leen wax bu defee ngeen jëm ci leneen ñu dem ci leneen donc loolu laa bëggoon a tey nag ñëw naa départ nee naa leen du ma xuloo du ma chargé xuloowu ma wu mais tey laa koy mën de tey laa njëkk a wax ci PV bi publiquement man ay dossier sax am na dossier yoo xam ne dama ci daan génn ba may nekk tribunal di ci wax bi dossier bi nekk dossier bi même bi mu ñëwee tribunal man defuma ci point de presse defuma ci conférence de presse ndax dañuy jàpp ni comme affaire privée nañ ko gérer waxuma ci kenn déggu moom wax ci depuis un an deux ans Ousmane Sonko mi ngi may saaga mook ñi ma àndal wax bu ñaaw bu ne teg na ko ci man teg na ko ci samay mbokk wala teg lu na ko ci samay mbokk ñëw naa mënoon naa riposter mënoon naa wax leneen nii la ma ñëw wax ak élégance parce lu ma fonk la mooy élégance lu may def rek damay xool ndax am na élégance waaye man 9 laa def parquet Dakar man procureur laa boo xam ni 9 laa def parquet Dakar dossier bii lii laa ci doon wax su leen neexee juñu doy na borom xel dootu nangu di bàyyi kenn jël presse bi di wax suñu demaatee ci fan su ko soxlaa dinaa ñëwaat boobaa su may ñëwaat Sénégal yëpp nangul ko parce que xamul ku fayu xamul kuy dóor ku fayu la xam procureur neuf ans Dakar moom lañ day attaqué te tontuwul leeral naa wasalaam